coalition benn Bokk Yaakaar pour créer suñu propre coalition coalition bi nag wax dëgg yàlla am na ay parti politique nest pas ay responsable de mouvement ay maires yu si nekk ak ñu nga xam ne ay honorable député leen nga xam ne dinañ bokk si coalition bi day doon une large coalition bu nga xam ne wax dëgg yàlla ñun ñu ngi liggéey pour que ñu massifier un peu partout dans les 22 844 villages quartiers amont du Sénégal lu ko waral nag du dara ñun président la république Macky Sall ànd nag moom ak euh, loyauté ak fidélité ba mu euh, def réalisation yu mag ba quitté réew mi wax dëgg yàlla jamono ji nag ñun duñ interdire kenn mu am ay ambition soo créer parti politique c'est pour que nga dem ci conquête au pouvoir te c'est tout à fait logique que ñu créer suñu coalition pour briguer le suffrage des Sénégalais